ñu ci jàngat bi dalal Charles fay Charles ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu euh, eh, ñu wax itam ci euh, la dernière sortie du président de la République muy président Macky Sall ak ses mises en garde wala sax euh, dànkaafu. waaw dànkaafu na maire yi jàpp ni wala recrutement bi teguñ ko ci yoon mu ne dañoo war a respecter organigramme bi gis nañu Charles même ay tontu ci président Macky Sall muy forum civil. ñu ne ko bale da tàmbali sa buntu nekk est-ce que noonu lañ ko war déggee. waaw daa daanaka bu fekkente ne tam wax na dëgg euh, faw moom ñu commencé ko si moom loolu lañ ko tontu problème bi mooy moom moo ko wax est moom moo ko waroon wax parce que am na yeneen kuréel yoo xamante ne ñoom ñoo gën a habilité pour tontu googu defe naa euh, c'est bien que ñuy relever. Euh, yenn incohérence loo xamante ne am na si dëkk bi ak loo xamante ne munu fi am mhm. te mu fi am léegi mais boo ko waxee daa day fekk que yow de ce point de vue amoo loo xamante ne dañ la la koy reproché te loolu moo ko dal te comme moom moo moom moo wax wax googa day may aussi opportunité muy aussi bien maire yi ñu tolloo ak moom muy euh, euh, nu mu tudd société civile yi tolloo ak moom pour ñu tontu ko du fait amatul euh, entre moom ak ñeneen amatul loo xamante ni mooy intermédiaire yu waroon euh, euh, interagir wala wax wax wax yooyu lan lay won mooy que parfois si biir communication président ba et puis assez souvent buy communiquer assez souvent aussi bon day may nit ñi opportunité pour ñu tontu ko cest à c'est des communication yoo xamante ne quoi moom dëkk bi sax moom xëy na soxla na ko. mais du moom moo ko war a wax parce que du ay affaire voilà lan lan lan lan nga jublu ci ne il fallait commencer il faut commencer oui il faut commencer par le sommet parce que bu fekkente ne tey doon xool tout pour man lépp loo xamante ne ñu ngi koy dundali ni tey dafay répondre comme benn genre défiance pourquoi parce que mm-hmm. on n'a pas vu en face loo xamante ne mm-hmm. euh, moom lañ doon xaar boo xoolee tey par exemple au niveau du contrôle nag def na fi ay enquête ba nga xamante ne am na lu fi wax mm-hmm. ba mu nekk au c'est-à-dire au sommet de l'OFNAC ku ko doon jiitee am lu mu fi wax dara mais ñu ngi doon xaar président de la république mu am lu mu def donc fa lay commencé bu fekkante ne yow si commencement ba maanaam loo xamante ne mu ngi jóge si yow affaire yooyu ñu ngi la koy ñu ngi la koy reproché dafoo liggéey boo xamante ne moom la ñuy xaar si yow mais boo ñëwee teg fi leneen wax fi leneen ñu ni dañ lay nekk il faut commencer par balayer devant votre porte monsieur le président après ñun ñu commencé wax quand bien même il aurait raison mais loolu lay won beneen affaire tam tey mooy que Sénégal doon tollu ci moment boo xamante ne défiance rek moo fi nekk mm-hmm. et ça c'est ça dafa c'est nouveau parce que jusqu'à benn date ba par exemple 2000 avec Abdou Diouf bu muy wax ñu ngi fàttaliku dans les années 80 90 bu muy wax jeunesse malsaine euh, boobu c'était la première fois ñu toog ñu xool euh, président boo xamante ne opposé à une jeunesse boo xam comprendre ko parce que tout simplement mémo yu mu doon recevoir maanaam renseignement yu mu doon recevoir waxu ko dëgg ba moom mu gisal ko boppam ba moom mu ñëw ba 2000 ne dafa il a compris il a compris trop tard maanaam pendant vingt ans on lui a raconté n'importe quoi la première chose aussi koo xamante ne le Sénégal l'a vécu avec le président Senghor ba mu dem yoonam donc dafa am à génération mu am ay problèmes yoo xamante ne apparemment les présidents ne sont pas suffisamment euh, maanaam amuñu renseignement yoo xamante ne mooy yu baax yi pour que ñoom ñu mun a am benn discours bu cohérent mun a anticiper donc loolu moo xew te que tey à mon sens mooy que président dina metti tey mu wax te nit ñi taxuñu. Mhm. indil ko opposition. mais dialogue suuf boobu naka lañ koy réglé parce que boo xoolee même les collectivités territoriales démembrement état bu Sénégal la. naka la mën a def ba finalement ku ci nekk resté sa ville ba déggoo mënul am. waaw mais boo demee ba nga dégg que bu fekkente ne ñu ngi joxee ville bi ku nekk opposition dëkk boobu gox googu dootul am dara on l'a entendu ici. Mmh. ba pare mun et que ça soit porté par même le gouvernement par des lu mu tudd ay ay membres du gouvernement mais état du loolu état da ngay nangu ku fekkante ne démocratie am na après les gens se retrouvent maanaam mun nañ bañ a bokk parti mun nañ bañ a ànd mais bu fekkante ne si benn liggéey euh, lo pour pour la gestion d'une cité mmh. mais kooku c'est en intelligence dootul affaire opposition ak pouvoir mmh. affaire u sénégalais yi la convergence la mmh. ça veut que tey lan moo am même dans notre discours boo xoolee suñuy turu parti suñuy turu kii da ngay xool amatul dara luy relever d'un projet de développement mhm. lépp lu ngay gis affaire de contestation lépp lu ñuy def si mhm. contestation lañ ko teg mhm. et pourquoi ñu am loolu mais mais parce que en face koo xamante ne moom moo yor affaire ga réussirul liggéey googu Mhm. est-ce que cette situation ne euh, risque-t-elle pas d'aller de mal en pis parce que gis nañu après la sortie du président Macky Sall euh, da doon wax euh, peut-être Barthélémy Dias da doon wax ci kaawu capitaine Touré ak Guy Marius Sagna le maire de Dakar va faire face à la presse pour apporter sa réplique est-ce que à la longue quand même du nekk loo xam ne finalement dina dem ba loolu olof naan bay dina wéy muus waaw euh, sénégalais yi ñoom ñoo si peut-être perte lu bëri. mais ñaari camp yi est-ce que loolu arrangé wu leen pour que ñu gën a dëgëral seen position. defe naa aussi quelque part dafa mel ne dafa am benn volonté maintenir situation bi statu quo bu mu toll nii wala mu gën a envenimé wu. Mhm. pour que nit ñi gën a seen positionnement. man mhm. loolu laa jàng. Mhm. mais bu fekkente ne lu ngay def pour askan la on trouve facilement un terrain consensuel. Euh, tey par exemple concernant capitaine Touré bii ñuy wax. bon maintenant on fait quoi du capitaine Touré est-ce que état mun na taxaw ne bon maintenant comme def na lii moom warutul liggéey. le rôle de l'état c'est justement de c'est que il a une famille. donc dafa am foo xamante ne nit ñi en en intelligence war nañu mën a toog ban indi affaire bi surtout que kooku fu mu jógee c'est un c'est une institution alors du coup dañuy am koo xam on on insulte une institution lui-même insulte une institution le maire insulte une le cest continuer si loolu la gendarmerie quand même on peut pas hmm. on peut pas faire n'importe quoi hmm. donc boo bu ñu xoolee tout ce qui est en train d'arriver dafa hmm. mel na que euh, Sénégal depuis quelques années depuis man j'estime depuis Euh, depuis deux mille seize depuis deux mille quinze dama estimé que dañu dugg si benn benn tournant bu doy waar. boo mm. xamante ne faw ñu toog ñu réfléchir si te politiciens yi rek ñoom mënuñu si génn si loolu. c'est pas possible politique politicienne bi est mooy la principale cause de de de de ce retard noté dans les dans institutions. mais oui. mais oui euh, maa ngi toog fii may dëgg dem ba revalorisation par exemple. c'est très bien de la fonction publique. ñu euh, koy téye si ñan ñu koy téye si huit cent mille neuf cent mille personnes ñoo xamante ne ñooy fay directement l'impôt mhm. beneen bi mu nekk impôt collecté au niveau TVA ak yu demee noonu ñu jël fonctionnaire yi yokkal leen salaire yi nga jël suuf si nga xamante ne ça coûtait tant moins de cinquante mille francs quarante mille francs en mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf suuf googu tey nga bëgg jaay ay deux lan moo indi loolu mhm. mais c'est du Sénégal moo ko indi c'est le gouvernement libéral mhm. bu ñu xoolee par exemple les honoraires de depuis 1999 c'est 4 000 francs pour les IPM comment suuf si mun na jóg c'est-à-dire suuf si lu mu munee jóg kër yi jóg ba pare ñu ni seen honoraire du changé hmm. salaire yi ñu ni di dem buñ waxoon tey kon tey euh, médecin bu buñ taxawoon tey et c'est vers ça qu'on va aller buñ taxawoon tey ne par exemple euh, ñun 4 000 francs yoo xamante ni IPM moom la ñuy fay mënatul ne 20 000 francs moom la ñuy fay le privé depuis depuis 23 ans hmm. mais ça devient impossible donc état bi quelque part pour man politique politicienne dafa bëri dafa bëri ba nga xamante ne loo xamante ne moom lañ war a laal touché ko pour que ñu bañ a àgg si ñii parce que boobu booy laal pour développement cuune dootu fa nekk. Mhm. foo gis développement cuune newu fa. alors sur place foo ko gisee nag moom. alors man moo moo souci mooy. Euh, dualité bi nar a am wala boog rivalité bi nar a am entre ville de Dakar ak l'état central loolu Dakar def ci mus euh, am ay jafe-jafe depuis cas xalifa Sall c'est c'est c'est la c'est Dakar qui en pâtit tey jii euh, Barth waxoon na ne moom dina liggéey ak état central dina fëgg buntu Macky Sall dina liggéey ak moom mais tey jii euh, dans les faits mu mel ni que loolu narul am guerre moo nar a am alors les conséquences fan la nar a gën a méttee ci ñun Dakar waay wala. waaw conséquences yi mooy que Barth day du day gën a tàngal dina gën a tàngal pour aller jusqu'au bout. Hmm. mais lan la si séntu lan la si lan lañ si bëgg. lan la si ville de Dakar di gagné. lan la si ville de Dakar mais ñoom personnellement. politique parce que si biir si biir aussi il y ñoom seen plan. des arrières politiques des actes politiques des actes politiques yu ñu posé dinañ arrivé ba nga xamante ne effectivement lu mu bëgg dina ko am mooy tolloowaay ba moom ak Macky ñu nekk si kaw ñoom ñaar ñuy defante face mu nekk dualité mais sénégalais yi éliruñu ko maanaam Dakar waaye éliruñu euh, Barth pour que muy def dualité ak président de la République mais c'est une situation que le président moom moo ki l'aura provoqué lui-même et du point de vue politique boo ko analyser bu baax ci biir loolu président moom moo am problème parce que Barthélemy président moom il s'en va Barthélemy c'est l'avenir politique euh, alors le, il faut faire attention justement fond, à cet avenir politique mais dans le fond moom laa bëggoon wax la sortie du président dans le fond am na benn part de vérité bu nga xam ne am na ci parce que la loi reste la loi l'organigramme doit être respecté mais euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo koy tontu li ñu koy opposé est-ce que loolu mooy tontu bi maanaam euh, ki fi jiite Sénat ak ki jiite dañ fi war a jóge donc da war a bale sa buntu kër ba pare soog a wax ak nit yi. mais président il a raison sur toute la ligne. sauf que ñeneen ñi aussi lu ñu koy opposé. Mm-hmm. c'est vrai sur toute la ligne. balaa ngay digle càngaay da ngay mais loolu moo arrivé c'est-à-dire loolu c'est-à-dire dañu arrivé si moment boo xamante ne euh, dootul dootul toog wàccante xalaat euh, opposition bu civilisée boo xamante ne dañuy waxante xool mm-hmm. trouver point de convergence nekkatuñu foofu léegi nous sommes dans une opposition mm-hmm. da gars yi ne ne bu dul fii ñu régler ko feneen te loolu teg benn épée de Damoclès sur le Sénégal. Mhm. ak sur la tête des Sénégalais. Mhm. ne leen boole gisoon nañu fii lu fi xewoon président nii dootu fi am parce que munatu fi am. donc ñu ngi si loolu donc il faut que tey mu am ñoo xamante ni dinañ dugg suñu déggante pour rataxal affaire yi waxtaan ak nit ñi ne leen lii mënul ne on a quelqu'un koo xamante ne il doit partir dans deux ans. Mhm. loolu yëpp xam nga tout ça cest à yi ñu ngi créer benn situation bu doy waar au Sénégal et ils en seront responsables aussi bien mu nekk mouvance présidentielle ak opposition bu fekkente ne trouvé ñu benn terrain ba nga xamante ne président dañ ko war a parce que tam aussi quelque part c'est une institution incarnée lu muy def lu muy wax dañ ko war a respecté et moom si boppam à mon sens am na ay communication yoo xamante ne war na ko war na ko de révocation est-ce que c'était le moment. Euh, euh, bon il était quand même ak ay am dafa euh, il était quand même avec des syndicats mais day won aussi une certaine un certain stress parce que bu fekkente ne tey nga xool nee naa leen sànq nous avons huit cent mille personnes neuf cent mille et le président l'a dit qui contribuent directement sur une population de 17 millions mu ne la j'ai 540 000 540 et quelques mille familles à qui nous donne on les ne font pas de, le, comment dire des statistiques hein 540 000 et quelques foyers boo ko multiplier par 10 oui. te fait 5 millions, d'habitants sur 17 millions muy ñaata muy le tiers mm-hmm. nous on ne fait pas attention à ça donc ça veut dire que y a 800 000 personnes yoo xamante ne ñu ngi liggéey pour si moom lay état di dem di kii donc quelque part il est tendu il a dafa am la réalité de ces de de, de ces recettes budgétaires nga xamante mu ngi jógee ci impôts yi mu ngi jógee si taxes douanières yi mu ngi jógee si xaalis boo xamante ne ñu ngi koy uti bitim réew donc il a une tension. très très très très forte gannaaw loolu. les salaires des fonctionnaires pardon. man de n'empêche que jëloon cent vingt milliards. waaw mais mais ça veut dire il ne peut pas faire autrement. Mmh. loolu tax moo c'est-à-dire dëkk bi tam aussi mënuñu ko jël ba boo bëggee riche tu ne vas pas faire de la fonction publique je suis mm-hmm. désolé mm-hmm. un fonctionnaire qui veut être riche Sénégal ngi ay fonctionnaire ah, mënul ne mais looloo fi am déjà non mënul ne mënul ne mënoo nekk fonctionnaire mënoo nekk fonctionnaire di gondi si kaw nit ñi riche non c'est-à-dire si xaalisu askan wi ngay dóor mm-hmm. donc président tey il est dans une situation moi je suis top côté boobu ànd naa ak moom totalement justement il, il a peut-être raison hein, euh, Charles le président mais finalement pour le cas euh, capitaine Touré est-ce que c'est création post bi en tant que tel moom mooy poser problème ou bien l'ancien statut du capitaine Touré est-ce que finalement Barthélémy Diaz n'a pas le droit de créer des postes même à la mairie est-ce que le pouvoir ne lui confère pas son pouvoir de, maire de Dakar dans cette affaire nit ñi loolu la ñuy xool c'est vrai capitaine Touré ne peut pas chômer dans le Sénégal mënul ne mënul ne mm. maintenant il a un problème avec la gendarmerie mu am problème avec quand euh, faut que quand même exemple reste fort il faut am exemple bu am maanaam sinon c'est fini quoi Et la gendarmerie a déjà sanctionné. voilà la voilà maintenant il faut pas que mu toog di. sommet il faut qu'il refasse sa vie. il faut qu'il maintenant lépp intelligence la dafa am loo xamante ne da nga koy analyser quand quelqu'un des Sénégalais se réunissent pour trouver benn benn nit trente et quelques millions wala quarante millions si benn bés mu am fi ay xale yu ndaw yaa xamante ne ñu ngi ut xaalis amuñu ko te on est incapable. d'avoir benn politique pour mettre nos enfants tous nos enfants dans de bonnes situations mm-hmm. da ngay xool ñun en fait qu'est-ce qui loo xamante ni moo ñuy dundal au fond mm-hmm. nous sommes dans la contestation mais situation bi ñu nar a dem nii nar na doy waar parce que ku xam Macky ku xam le président de la République ku xam Macky Sall xam ne du waxantu bu waxee rek mën na mën na ànd ak jëf te ku xam Barth ne du enfant de cœur bu nga xam ne nu la neex nga koy manipuler te tey bu defee sortie c'est sûr que ce sera une sortie au vitriol et on va vers vers une confrontation bu nga xam ne euh, voilà est-ce que aujourd'hui euh, ça va pas paralyser même le fonctionnement de l'institution à un certain moment bon euh, je pense que nu ñu gis ni euh, on est arrivé à un niveau de défiance obligatoirement foog mu am loo xamante ne coupure bi dafay dafay daanu léegi couperet bi pour mu daanu mun na am ay coussin d'amortissement euh, par l'intermédiation pour que nit ñi bañ a ñi bañ a ba foofu mais bu fekkente ne aussi que le couperet tombe mm-hmm. pour une révocation de Barthélémy Diaz mm-hmm. ça peut être très compliqué pour. Euh, Fatick waaw la situation justement révocation boobu naka la mën a euh, concrètement naka la mën a demee euh, on se on se rappelle que récemment on l'avait fait peut-être avec Khalifa Sall. Les statuts de maire ont changé maintenant. Ils sont élus au suffrage universel. Euh, si jamais le président euh, décidait, entre guillemets, de révoquer un maire, naka lañu. mais des fautes lourdes c'est une il y a des fautes lourdes boo defee loo xam ne lu dul loo warul def kay dañ lay révoquer. jarul jaar assemblée. non dafa non non c'est des fautes lourdes il y a quand même le maire n'est pas le maire est tenu. Mm. le maire est tenu par des lois le maire est tenu par des process. Euh, administratif ak proces euh, euh, lu mu tudd comptabilité administrative ak yu demee noonu il peut pas faire ce qu'il veut mais par contre du point de vue politique am na loo xam li yëpp politique rek la antu leneen mm. mais maire Barthélémy Dias moo gën a xam lan mooy limitam très bien te tey nommé premier ministre dafay daal di nekk lu nga xam ne impératif bi dafay posé wu ba léegi parce que toujours c'est le président qui sort et c'est le président qui est attaqué directement

merci beaucoup jëf Charles kii euh, jàngat bi léegi léegi ñu tegtal leen euh, gëstu bés bi